Right. Huh? Moom mooy sàq ne ko seen de taal mi mel ne gi boobu nii kii xaw Oké, oké. ok. yaa ngi rëkk. Waar yow waaye maa ngi ah. hey. wat yow xanaa Wat, ah. yow xanaa wóoroo yow léegi bi. kër kii man man Mbar Jam. jam na kay. loolu ba fekkee fi ngay sàq na ko yoo xam ne loolu dafa sa taalifa la xanaa wóoroo. waaw waaw jaa bi wax dëgg yow tam lii na baaxul de nit bu wooree bu wóorul nit kenn doo yee nii. nu la yee nee na. déedéet am na loo xam ne kay c'est pas vrai nit da nga koy béy rek mu dalu bàyyi ko mu dalu rek. ana ana kolle kolle ɗiɗa noon kono kenno walla gi hono ana ana ana ana res gi res hen ban res ɗum ta dogge dogge noon c'est pas vrai ah! da ah ko nde ɗogno gendi yo kon ke ɗogno ndelo ɓe gendi am na loo xam ne daal bëgguma ko loo bëggut nit bu fekkee ne day récupéré bàyyi ko rek mu dal waaye nit mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi récupéré rek bu skilee yow ni nga récupéré yow déedéet lii moom bëgguma ko rek bëgguma ko de lii nga ma def tey nee fu mu de. Eh, lii nga def yow moom moo woo yow. de lu lu ci jotee. nelaw rek nelaw waaw ku. nelaw bay gën nelaw ay misiri ñun ay res. loolu yëpp sa yoon ci bëgg li jënd ah déedéet. lii nga bëri moom ba wala maa la ko nag. lii moom service yi di la ne ya fekkal nga sàqam ko xam nga looy lekk ni laa. loolu de sa yoon nekk ku ci na looy lekk de. sa yoon nekk ku ci di. ah sa yoon nekk ku ci. lii de ma waxoon ko moom pour nga woor moom. xam nga loolu nu ñu woore. xam na la yow ma ne bëgg naa baax na jërëjëf. waaw léegi maa ngi dem si kër Mara. demal sa yoon. waaw kon nii ma taxawee de. demal sa yoon rek xam kay man kay sa wala yow kay di wax dégg yàlla lii moom jukko bu sel bi si de la de waaw baax na jërëjëf jërëjëf. kon baax na maa maa ngi dem kër Mara. waaw demal ma. nii de kenn ko woore moom. ni ngay def kenn du defi. nii kenn ko woore. ni nga yee de kenn. nelaw nii nga yee. nelaw jënd ay misu ay waa doolu dëkk boo koy gis ci kii la tàmbalee su ma nelaw yëpp yàq naa ko su ma géewal tigi kalaat naa ko dagg naa kalaat naa loolu dagg naa ko na sak boole na ma ak leneen ndax fi mu ne nii biir bi mu def kur naa koor gi doy na waar ji kaala wax na kaala gis na kaala wax na kaala kaala kaala kun na fat te yow kii lay woorloo doo ko gis doo ko dégg man suñu maam ba léegi gisuma ku ñuy woorloo da ngay dégg rek kaala wax na woor leen kaala wax na woori leen kaala wax leen di woor na wallaay waroon na yàgg bari ci déemu gënal koor korite du <laughs> moroom ko beñu da gi gis da nga gis pooj ginaar beñu beñu lem-lemet yooyu danga war noo xale ñu jëndal ko wete no ndumbi ndumbe Abdoulaye nala jaay miskit kanangaay dama wóor kay waaw roowaan gi moo koy laaj yoor yoor bi xam nga léeg-léeg day ruudu laaj mm-hmm. rawaan bu tuuti bépp bi moo koy laaj ah. mm-hmm. dama koy sarake rek waaw miskit kalengaay boo ko fàtte yooyu sa kalengaay kalengaay yooyu Waddik dong lagi yang kan mengeluarkan dulu kalarna dulu kalarna ini dengar denam tinggi kamu tinggi duba wow kai jadi jadi kali ini laa koy syarak. Mungkin dia lulus lagi, bukan bu target. Lagi ya. lagi ya, sa liggéey Kali ini yi léeg-léeg dañuy oto yi bul bul bul génn ni. Oru. Oru. Sirwita shode baawno koleraade am de fum baawam fum bom kolno virus.

comme canard du boof ma japp na koor gi yow demul l'hôpital ah, hmm. ah jëlu waaye li nga tak sa gémmiñ gi day yokk ba tu bañ masque yi nga tak masque bu tilim bi sax waaw ah sa masque bu tilim bi ak nim mu ni xol lox bi metti di da koy da koy infecté hmm, hmm, infecté da koy def da koy infecté di ngoy koy dindi ngelaw di dugg ko ci biir bàyyi moytu ngelaw ah calme calme déedéet déedéet lii kay dem mënu dem dem mënu ko def mënu ta dem ko def ñu la ci situation yi nga nan na hôpital léegi ma. boo mënut a dem hôpital dem boo mënut a dem hôpital dem dimbali ma rek nga tekki masque bi. waaw tekki lii waaye xoolal lii ma tekki lii eh, eh, eh, eh waay eh waay waay waay waay miskin. ah. lii de xam nga lu ko waral. lu ko waral ci lan. kaala kaala woo bi ma doon tudd kaala. rasulullah kaala kaala woo kon di nga expliqué gis nga lu waral. maa ngi ne kontaan boobu moo tax muy indi. waay waay waay bu kii nag yow nag lii nii dal nii. lii kii rek déedéet waaye léegi xam nga laa laaj miski bi ban ban façon miski la bii kale kale ngaa yi kam malaaka bi ma kaal kaaloo kaaloo kaal ji moo tax mu ma miski bi ma gën a bëgg daa juuboo na miski bi ma gën a bëgg moom moom loolu moom la loog nii kii du bëri dem lañ ko jàpp fii ci bee déedéet bii juubulu de sa su wurus la ma nag bii juubulu juubu bëgg sa waaye miski bi bëgg miski bi nga xam ne moom laa gën a bëgg eh, eh, bàyyi ko déedéet déedéet déedéet Malick miski bi kilifa waaw kii Ibrahima sax baaxul juumul xam nga sëriñ yow yaa ngi yàq dër sëriñ ah yow yaa ngi dama dugg ñëw rek mosu mën a gis nga def benn kiraama ay erreur rek ngay def man ci erreur boobu nag moo indi lii erreur ba erreur moo moo ma fekk fiir njatamaal ma ci yow sax gis nga miskin waay waay waay waay kii miskin bu ma oui ba boo léegi sax boo lekk miskin bu léegi ba jël miskin mi miskin bi sama sa miskin déedéet kii guy ma teel na ko miskin man ma laaj nan dugg parce que kii da ko war a delloo rawaan gi sax moo koy laaj teel na ko miskin teel na ko bis gi kanam gi niróo daal di càmmoñ la kenn du ko kii kanam gu ñaaw gi. dina ko kas ma xam nga lii de gi moo ko waral technique moo def lii di. technique ah moo ma tooñ rek juubuloo technique nga ma technique moo ma tooñ rek juubuloo waaye yow moo ma tooñ juubuloo juubuloo kii kii maanaam kii kii kii kii nañ dugg si bàyyi ah miskit bi laa wax eh, ah eh, miskit bi sarake rek kayaknya bok ñu kita punya wóor ñu wóor jàngoor yi dafa bon def nga xale ngay baax na ci réew mi de yang kon naa wiril de yàlla na dem waaye masque de yàlla na fi yàgg day defar nit de sama technique boo wóoru da ngay dee rek nekk fii rek ba sama kon lu jëm bata basketeer waaye da ngaa ini yang di def ada. laay yang da ngeen ci mi ya karena musuh nii rek yaakaar naa mosul koor na